ànd ci ak ñoom parce que bul fàtte ne assainissement Touba euh, man maa ko mos a yor ci mairie Touba 2009 ba nëgëni ma liggéey ci liggéey bu am solo ànd ko ak mairie Touba ànd ko ak Sénégal mais nag loolu moo waral tey bi nga xam ne maa ngi ñëwit ñëw naa fi ci ñaari tànk benn bi en ñetti tànk benn bi en tant que député de peuple benn bi en tant que bi ko jiitu mooy en tant que taalib Serigne Touba bokk ci responsable Touba ci kanam beneen bi euh, le ministre Karim Fofana yóbbante ma ay camion yu mu war a indi ak ministre Dame Diop pour ñu jàppee ko ci programme bul fàtte ne Touba ci kanam lii ñuy def lu am solo loo xam ne euh, dafa fekk euh, euh, comme li état di def ci Touba ñu ñëw sof ci liggéey bi lu am solo la boo xam ne ñun yëg nañ ko te ñëpp ci war a jàpp di ñaan it état Sénégal ñu gën ñu jàppale gën ñu taxawu comme ni ñu tax ni ñu taxawoon ñu bàyyi xel yit ne Touba ci kanam comme niñ ko doon defee mooy ci yeneen yi nga yu bari ñu koy def ñu ciy jàpp mais nañ ñu gën a jàppale gën ñu bàyyi xel comme niñ koy defee te xam nañ ne ñu ngi ñuy jàppale ñu ngi jàppale Touba ci kanam te loolu xam nañ tey Touba ci kanam doon programme boo xam ne alalu murid la murid yëpp ñoo ciy def seen alal du alalu kenn yëpp ñëpp la ñëpp a ko bokk képp kuy murid foo mën a nekk ci àddina ci nga bokk kon nag yoon la ñëpp gën ci jàpp di sant Serigne Mountakha ci taxawaay bi ak kilifa yi di ñaan nag ñun ñëpp ñu maase àndandoo jàpp ci yëf yi taxawu ko ba nga xam ne euh, lii nga xam ne Touba ci kanam taxawu na ko ñu ñu ñëpp ñu gën ko sëmbal jëmbal. jëmbal ko te loolu li ciy firnde damay wax gars ne Touba ci kanam du du loo xam ne kenn ko moom dañ koo tuddee Touba ci kanam tuuru dëkk bi la moom ñu ne dëkk bi na dem ci kanam ku ci ne sañ nga cee bokk ñu ngi ñaan ñëpp nañ ci bokk kenn moomu ko. parce que ñun ñu ko sosoon bokk ci ñu ko sos parce boo koy xool suñu tur sax doo ko ci def.